président ñu ngi lay ah, maa ngi leen di delloo ziar bu wér laal yoon waaw. tey jii en tant que axlu làmb Sénégal yéen dund làmb nekk si di si bay seen waar ki nga xam ne moo leen jiite Ndeysaan Mbayang Loum la voix d'or ah, tey jii nii ñëwul teewul nga teewal ko ban yëg-yëg nga am si lool noon waa kontaan bu baree bëri bëri bëri di leen nuyu yéen bu baax a baax a baax waaw te naan axlu làmb seen journée bi ñuy def chaque année yàlla na gën a neex. jëm kanam ba àdduna wërngal këpp xam ne ak lu làmb téye nañu làmb jox nañ ko gëddam waaw am naa kontante bu mag nag ni ma ñëwalee fii groupe Mbayang Loum waaw. tey jii nii ne Mbaye lan moo ko téye ba teewul loolu lañ bëgg a xam ndax keroog gis nañ leen juróom yéen a fa newoon tey tamit yaa teewaat. waa yitte jamono rek. yitte jamono rek ñoo ko téye comme ñun ay ndongo daara lañ mu jàngal ñu. wóoluñu fu mu ñu yebal rek bu ñu fa demee dañ koy wàccee waaw mais ñun nag bu ñu sañoon fu muy dem day ñëw ndax jëmmam la nit ñi gën a soxla waaw waaye itte jamono rek. mais yow tamit gars yi soxla nañ la ndax maire 10 moom ku ko xam-xam ni daa baax daa ouvert.